foto bi de tisaaroo na te jàpp naa ni xanaa ñu bari gis nañ ko bu ko ñëpp gis it ñu ëpp gis nañ ko euh, moom nag da ca am loo xam ne mbirum gëm-gëm la nga xam ne nit ki bu gisee am na droit gëm naa ni mooma loolu kenn mënul ko dara bu gisee ba am na droit ne gëw kenn mënul ko dara moom bu dee jëmmi photo yu kese nii waaye nag bu fekkente ne dañ koo bëgg a jàngat nag ci wàllu xam-xam ginnaaw photo yi dafa ànd ak mbind photo dafa ànd mbind bind nañ ci 11 mars 1918 bindaale sax turu Cheikh Ahmadou Bamba jëf yi nga xam ne moo feeñ ci photo yi it di wane ay jëf yoo xam ne am na ñu wax ne xewoon na ci 11 mars ci njaareem te mooy teg xeeru jumaa yi njaareem jooju ñu gis fu sëriñ bi yore lu mel ne tureel gis ko fu muy jullee gis ko fu mu taxaw mbooloo mi wër ko gis ko fu mu nekkee ci ci lu mel ne kàmbu te loolu lépp day xew-xew yoo xam ne fekkoon na histoire saxal ko su boobaa moom lu aju ci gëm photo yi sëñ bi la ak du sëñ bi loolu moom kenn ku nekk ak ngëmu boppam la waaye nag saxal ko nag sax goo xam ne da koy bëgg a teg ci xam-xam loolu aajana jàngat bu baax a baax a baax tey. njàngat di ci am nag bari na man nag xam naa euh, maa ngi ànd ak ab kuréel boo xam ne yàlla dogal na ñoom ñu ngi ci def ay gëstu ak i jàngat te it bëgg nañ caa génne ab décision balaa yàgg bi def benn déclaration wane seen postion ci photo woowu te ci kaw ay njàngat yu leer lañ koy teg euh, ña ngi cee liggéey nag te noppeeguñ moo tax bëgguma cee euh, sori ndax jàpp naa ne la cay génn man loola mooy doon la may doy ndax foto wi dañ koy jàngat maanaam biir photo wi maanaam kii ñu ne sëñ Touba lan moo tax ñu ne sëñ Touba la ñu ne du sëñ Touba lan moo tax ñu ne du sëñ Touba même julli gi maanaam ngir ngir wan la ne njàngat mu sew nga cay am même julli googu ñoom euh, prouvé nañ ni julli gi yoor-yoor la te ñu ngi sukkandiku ci dañ ko xool ba gis takk ndeer bi féete ko sow te yoor-yoor rek la la sab takk ndeer di féete sow waaye bëccëg moom sab takk ndeer kanam la lay féete nga xam ne loolu bokk na ca njàngat yi nga xam ne kon njàngat yu ama am solo ngoog waaye eh, am na ay sew-sew it nag yu ci am yoo xam ne date bi ci nekk xaw naa wuteeg datub sëñ Modou Lamine Diop Dagana bi mu bind ci Irwaa na Nadim ak téeréem bi nga xam ne mooy taarixul masjidayni xaw nañoo wuute rek weer diggante boobu ak diggante bi nekk fii xaw nañoo wuute weer donte nag date bi nekk ci photo yi ku mel ne sëñ Modou Xayri nee na laaj na ko sëñ bu Bousso laaj na ko sëñ Mbacke Jaxate laaj na ko sëñ bu Mbacke waaye ñoom ñëpp dëppoo nañ ci ne ko altine la woon te it 11 euh, mars la woon 1918 nga xam ne ñoom dëppoo nañoo ak la ne ca photo wa waaye xam nga boo xasee bay jàngat loo gën a xóotal rek doyut ginnaaw nag ay njàngat a ngi ciy am ba xam sëñ bi la ak du sëñ bi te ñooñee ñu ko seqal ay boroomi xam-xam lañ yoo xam ne ñu jàmbaare lañ ay gëstukat lañ te waxaguñ ca lu leer loolu moom ñun dañuy dañ ci def tawaquf maanaam taxaw di jàngat ak di seetlu. buñ demee nag ba la gën a lëng nag fés bañ gis ne lii kat xam-xam moom la gën a saxal lii moom la xam-xam gën a saxal ne sëñ Tuubaa su boobaa loola rek moo ñuy doy buñ gisee lu gën a lëngal leneen it te nga xam ne xam-xam loola lëngal su boobaa it loola rek moo ñuy doy waaye jamono jii moom man bokkuma ci ñi ko saxal wala ñi ko dàq waaye bokk naa ci ñi koy jàngat te amaguma lu wér dëgg la nag mbooleem ñi ko gis ñëpp nag amul kenn koo gis te amoo loo yëg ci foto wi ci leer li wér te wër moom mooy li ma jàpp moom nga xam ne moom mën naa koo wax nii ci sama kàddu bopp nii man mooy photo bi moom ay murid lañ waaw ay murid lañ moom loolu moom mën naa ko wax ndax war ma jooju ñu gis muy boppub neen ak tànkub neen loolu teggi ni murid la col ga sax xaw na caa feeñ waaw sax xaw naa feeñ ci loolu waaye nag bu ko weesoo nag ndax sëñ Tuubaa laak du sëñ Tuubaa loolu moom gëstu yi nga xam ne ña ngi ko ci am te feeñagut ma yëguma man ma man cee dogu ci lenn